littoral bi premier ministre jot na pré rapport bi ñu ngi xaar peut-être ay décision yu yu am importance euh, lan ngay séentu yow. xam nga <clears throat> nit su jëlee santé liggéey jox ko ay nit. Mhm. ñu def liggéey bi ba pare dañ koy jébbal ki nga xam ne moom moo santaane liggéey bi. Mhm. suñ ko ko jëbbalee ñu xaar yan orientation lañ ciy def la question question littorale bi Fatou. lenn rek moo koy mën a régler parce que suñ ko defoon bu yàgg on allait régler la question du du littoral depuis très longtemps parce que mënoo am société d'aménagement des côtes muy sab ko nga jox ko côte yëpp du Sénégal de Saint-Louis à Ziguinchor nga ñëw ba Dakar limité ko aujourd'hui suñ jëloon ñëw Dakar tuddee ko domaine public maritime tey soo bëggee régler soo bëggee régler la question du littoral da ngay jël domaine public maritime bi jox ko ko pour mu aménager ko su boobaa su fa lenn amee tu sauras situer les responsabilités nii nii nii on ne peut pas situer les responsabilités n'est-ce pas inspection des domaines duñ ca set ministère de l'économie et des finances duñ ci set état du Sénégal dans sa globalité duñ ci set aujourd'hui solution la ñuy bëgg la ñu bëgg trouver pour que euh, occupation anarchique boobu jeex parce que c'est ça que nous voulons parce que nos côtes on est on on on de les perdre au niveau de Dakar littoral bi ñun ba ñuy nekk xale dañ doon dem ci plage yi maintenant les plages ne sont pas accessibles maintenant ci seeni rapport naka la ñuy def hôtel Azalaï bi nga xam ni ñoom fa la ñu nekkoon ba ñu génnee prison comment ils vont faire de de de cette de cet de cet hôtel naka lañ koy ay client la ñu woon rek. wala yow da nga xam. na de non non jéem ma jéem ma dugg ci. j'ai dit comment ils ont fait comment ils vont faire cet hôtel bi nga xam ne fa lañ nekkoon. parce que hôtel bi aussi hôtel bu bees la fa lañ leen fa lañ fa lañ nekkoon fa lañ nekkoon ay diir avant ñuy falu ba ba ñu falu ba après ci lañ fay doog a doog a doog a ñëw donc si ñu voulons trouver des solutions SAPCO mi nga xam ni moom nga dénk côte yi moom ngay jën littoral bi jox ko ko. demandé ko nag mu aménager ko mais pas mu contrôler ko mais soo ko demandé mu aménager ko suba su amee occupation anarchique di nga xam ni Ablaye Cheikh seex kan la mais là su nekkee da ngeen di ñëw def rapport ba pare après continuer ci ni mu nekkee woon mais baaxul parce que loo def def rapport lu gaa yi def rapport doo daaneel bâtiment jàmbur. Mhm. soo ko daanelee da nga koy fay. lu gars yi def def def def rapport am na yenn construction yoo xamante ne mu ngi ci littoral bi doo ko wàcce l'État du Sénégal va perdre beaucoup d'argent mmh. maintenant li fi am li am am na ba pare maintenant il faut arrêter savoir arrêter l'hémorragie maintenant comment arrêter l'hémorragie mooy littoral bi dañ ko war a aménager te tey la SAPCO peut prendre en charge cette question la de l'aménagement du littoral de Dakar pour permettre aux investissements aux investisseurs de venir s'installer dans le pays pour développer des secteurs créer générateurs des secteurs générateurs d'emplois parce que yaa ngi koy wax léegi munoo arrêter ay travaux ñu perdre ay centaines d'emplois wala ay ay mille emplois et plus après manque à gagner boobu noo koy def maintenant pour pour parier à parer à tout ça il faut nga jël société bi nga xam ni moom mooy toppatoo petite code bi moom mooy toppatoo les côtes du Sénégal nga yëkkati littoral bi jox ko pour mu permettre pour pouvoir faire l'aménagement bi ca war demain si yaa bobo doo seeti kenn parce que soo ko dénkee Cheikh Kane suba su problème amee Cheikh Kane ngay waxal il te donnera les explications nécessaires mais aujourd'hui li mu bëgg xam ci ci ci littoral bi dina jafe mu xam ko parce que les responsabilités son sont partagées parce que année bi ñu jël la deux mille deux mille vingt ba deux mille vingt quatre. affaire bi commencé wul démb. te commencé wul démb commencé na bu yàgg. il y a l'installation des sociétés qui sont là des des des des, des, des hôtels qui sont là et qui datent très longtemps te sooy fàttaliku ba ñuy installer yenn hôtels yi coow lu bari la fi indi tout à fait. ak ñi mujjee def extension ak ñi mujjee def extension coow lu bari la fi andi. Mhm. ba ñuy def su Wade donc su Wade amoon na coow lu bari. maintenant terewul am na ci ñoo xamante ni ñu ngi acquérir seen i seen espace sax du temps de Wade. Mhm. y a des chefs d'État qui ont africain qui ont de l'espace là-bas ñu ngi koy tabax. kon yow li muy def nii loo ko jàppee toujours populisme. non no non je ne dirais pas pour dafa nekk di saytu. ok maintenant soo saytoo ba pare. mu am espace yu dem nga ne léegi léegi maintenant on va arrêter on va arrêter maintenant ñiy tabax ñi doon tabax nañ continuer seen tabax maintenant espace bi des jox nañ ko diw jox nañ ko société d'aménagement des côtes muy ko suñ ko ko joxee moom mu aménager ko parce que y la question de de de de de de de de Anse Bernard nest pas espace la boo xamante ni arrêté nañ li nga xam ni moom retiré nañ ki nga xam ni moom lañ ko joxoon. mais SAPCO a besoin de cet espace pour pouvoir aménager su boobaa di nga mën a situer des responsabilités le long du littoral il de l'espace yoo xamante ni mën nañ ko aménager pour que population bi mën ci gis seen bopp parce que à Dakar pour aller au niveau des plages c'est tout un problème. Ouais. plage léegi privé la. les plages sont privées mais soo ko joxee société société nationale bi nekk fii mais mun na ko aménager pour que certaines plages certaines plages mën a nekk publiques pour que ñu aménager ko pour que investisseurs yi ñëw ñëw parce que. si on a besoin de créer d'emplois mhm. il faut développer le secteur du tourisme et secteur tourisme ñoo soxla tourisme balnéaire parce que littoral bi mun na servir à ça mhm. et ça peut créer beaucoup ça va générer beaucoup beaucoup donc par rapport aux solutions c'est simple jël littoral bi parce que ya sa des as néew mm. Cheikh ya fa des as néew ñu ne buñ ko jox kenn dénk nañ ko diw pour moo mën a def aménagement bi et je pense que suñ ko de suñu defee loolu loolu mooy solution bi nga xam ni dina permettre euh, à la création d'emplois dans le secteur. Hmm. Cheikh que faut-il faire sur le littoral euh, lan ngay séntu ci premier ministre peut-être loo xam ni solution lay nekk. Hmm. en attendant d'avoir des solutions. waaw dans un premier temps Fatou dama jàpp ne dafa am solo euh, ñu saytu d'abord faire un état di lieux c'est vrai am na ñoo xamante ni ils se sont déjà implantés et la date. am na ñoo xamante ne ils sont en train de s'installer mhm. donc ñooñu tamit foog ñu càmbar ba xam aussi euh, nan lañ fa nekkee ak aussi euh, est-ce que ñu ngi respecter li nga xamante ni warloo nañu ko ñoom ak euh, en tout cas les textes et les lois yi nga xamante ni moo régir suñu réew donc foncier bi dafa doon une question bi nga xamante ni ça intéresse tous les Sénégalais te am na solo tamit ñu càmbar ko léegi nag j'entends d'aucuns dire que par rapport ak emploi yi nga xamante ni peut-être da koy impacter et puis naturellement décision day am ay ay conséquences. Mhm. et pas forcément des conséquence heureuses tout le temps mais euh, euh, ñi fay liggéey c'est vrai c'est des Sénégalais bëri nañu mais bu ñu xoolee par rapport population bëriwuñu. Mhm. donc ici il suffit il faut préserver l'intérêt du plus grand nombre tey l'accessibilité euh, n'est-ce pas par rapport ak plage yeeg yooyu noonu <laughs> mais attends euh, euh, c'est une question bi nga xamante ni li muy laal ci population yi mu intéressé moo gën a bëri donc am na solo. donc ñu càmbar ko léegi nag y toujours des conséquences comme j'ai l'habitude de le dire te mm-hmm. conséquences yi mën na bañ a dem forcément en faveur de tout le monde léegi nag li ñu xaar ñoom ñoo commandité seen rapport mm-hmm. pré rapport bi ñëw na ñu ngi xaar rapport euh, définitif bi bu génnee mm-hmm. mais su dee dañ koy jël jàngat ko après ranger ko dans les tiroirs je pense que ça sert à rien euh, benn sénégalais soxlu benn sénégalais et puis on aura fait euh, une commission ad hoc pas euh, liggéey si def li mu war a def saytu te jëluñu n'est-ce pas les mesures qui qui doivent suivre cela va demander du courage naturellement mm-hmm. dina am euh, ay ay yoo nga xam dinañ ko jël qui seront peut-être impopulaires dina am décision yi nga xamante ne aussi dina impacter peut-être certains investisseurs yi nga xamante ne jël nañu seen xaalis def ko fa mais il faudra oser aller jusqu'au bout mais on attend même que ñoom ay prendre ces euh, léegi nag li am ba am am na ñoo xamante ni peut-être nañ fa nekkee seen nekkin peut-être jaarul yoon loolu foog ñu lijjanti ko ñooñu moom déjà je pense que le cas est réglé. Mm-hmm. am na seen nekkin peut-être ak côté wàllu këyit ak autorisation. ils ont en toute légalité mais peut-être aussi il faudra peut-être xoolaat. n'est-ce pas euh, euh, gain bi nga xamante ni peut-être mën nañ ko fa am ou bien je ne sais pas peut-être délimité ou ah. je ne sais pas il y a plein plein ah. peut-être état moom mën na si sukkandiku pour jéem a joyanti donc euh, dans tous les cas moi je je salue ce rapport là et j'attends hmm. léegi nag les actions qui vont suivre derrière te actions yooyu noonu foog naa moo soxal Sénégalais moo soxal ñëpp hmm. mais si c'est pour encore une fois ranger ça dans les tiroirs et que ku mois Euh, yoo xamante ni d'une activité. bi nga xamante ni nit ñi peut-être ils auraient pu continuer à à faire ce qu'ils avaient à faire. Mm-hmm. mais malheureusement defuñu ko et puis euh, voilà quoi on a aussi payé peut-être ou bien en tout cas on a mis des gens sur l'affaire. Mm-hmm. ba ñuy def seen rapport un travail intellectuel mais aussi un travail de terrain. Euh, au finish ñu génnee rapport ñu rangé ko loolu day doon déception bu rëy pour sénégalais. Mm-hmm. alors ñu avancé wax ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye. ci ndaje mi mu sekkoon ak euh, taskatu xibaar yi euh, jot caa wax euh, lu bëri def bilan peut-être de ces cent jours mais surtout wax fan la jëmee réew mi waaw mais mais mais téeméeri fan yi en tout cas mën nañ ci jàpp li nga xam ne jot nañ ko ci def ci wàllu foncier par exemple nee na jot na bis boobu rapport Mbour 4 ak jéey yi fa am mais également li ñu jël comme mesure wàññi dund beeg yeneen ak yeneen lan nga jàpp ni tey mooy les points phares Euh, de cette sortie du président non analyser tamit forme bi euh, d'abord ak fond bi surtout. oui d'abord man su ma bi ma déglu bu paree le président de la république déjà c'est baax na.